teg ci kaw Ousmane Sonko te kenn waxu ko dara ñu xamle ni nag Ousmane Sonko loola yëngalu ko waaye ñoom ñuy avocat war koo sàmmal àqam ak yelleefam bu yoon deful dara daanu jóg def li nu a def mu yëgle ne nag tey caltine ji lañu fas yéene def mooy porter plainte ca la tribune ma jambal jaaj naan plainte contre plainte lay doon ndax bu ma Sonko plainte ma plainte ko Alioune Tine ca boobaleb yéenekaay di artu naan loola du xalaat bu baax plainte booba lañu a teg ci a xool nuñ mi quotidien wax ca boobaleb xeex diggante ma jambal ak bu dul jeex un combat sans fin journal bi nañu premier ministre tey jii dañu koy déposer la plainte journaliste bi répliqué maanaam tontu ba nuppi yëkkati waat yeneen kàddu dal ci kaw Ousmane Sonko Sonko mooma ñay dal ci kawam ciy kàddu direct news ca ñoom la xëy ne ca X mi ne woon Twitter ak Facebook am nañu fay janoog moom Ousmane Sonko yéenekaay bi tàmbaleek Adama Gaye di taskatu xibaar Madiambal Diagne Mamour Ibra Kane Thierno Diop Ramasek ak Yoro a tribunal di jot magistrat yi bees yéenu fa tabb rawatina booba lépp ak ñuy yëgal ne sax magistrat yi ànd nañu ci président Bassirou Diomaye Faye des ca conseil supérieur de la magistrature waaye itam wax li tax mu lànk ñu ubbil ko ñeneen source a ne lànk gi dara waralu ko lu dul dañoo ragal ne université secteur yooye bu ñu leen ubbi les conseils supérieurs de la magistrature ñu bari ca ñoom mën nañ ca prox ndollu jaaree fa ñoom bëgg doon ay magistrat magistrat yi ñu affecté ca Tamba muy Maham Diallo Mamadou Seck ak vox populi di ñu xamal ci xëtam gu njëkk ne nangu na njiitu réew ministre de la justice des ca conseil supérieur de la magistrature waaye ñeneen ña moom yii de magistrat yi danoo lànk ba tëdd ca naaj ba ministre de la justice Ousmane Diagne naan gis ci justice bi gêne magistral journal bi joxoñ njiitu réew conseil supérieur de la magistrature gim ne woon da cay génn toog journal bi tuddee ko la rupture piégée waaye li gën jaaxal l'observateur mooy coppite gi ci kàddu yu UMS nangu tey njiitu mi toog ci conseil supérieur de la magistrature te démb mu doonoon seen xeex bi gënoon a rëy ca l'indépendant Birahim Seck naan man kay looloo ma jaaxal yéenekaay bi ne coordonnateur forum ci ne booba pôle moo gën a garaaw fuuf CREEC OFNAC muy ëttu attekaay bi war a atte ñi luubal alalu réew mi yéenekaay bi fàttali ne Abdou Diouf moo taxawaloon CREEC yi Macky Sall dekkal ko doxal ko Macky Sall moomaa taxawal PJF bi Jomaay Fay war koo doxal booba lépp ëttu attekaay njiital forum du justiciable ca booba lépp yéenekaay naan ni muy doxalee procès moo gën fuuf na ko CREEC yi doon defee ndax fii buñ la attee te àndoo ci mën ngaa dem saisir chambre financière maanaam def appel ak ak yelleefu doomu aadama rawatina ci wàllu défense it neenu ëttu attekaay bu bees bi yee koy gën a sàmm waxtu info point actu di wax ci ëttu attekaay booba di atte ñi luubal alalu askan wi yor yor bi mi ngi xëy ci yorin bon ak caxat-caxatee alalu askan wi Pape Modou Fall nekkee woon ca direction de l'emploi journal ba de direction de l'emploi mooma dafa mujjee doon fu muy casé clientèle politique maanaam képp kuy militant xarit mbaa mu bëgg ci yow dara fëla lay dugal journal bi ne luy tolloog juróom-ñetti téeméeri nit recruté na leen ay nit ñoo xam ne dañu leen di fay Ndeye Ndiaye yéenekaay bi tuddee ko gouffre financier maanaam lekkukaay xaalis bu rëy rëy yor yor bi teg ci fàttali kàddu yi Pape Modou Fall yëkkati woon juróom-ñaari fan weeru juillet atum 2022 ne Ousmane Sonko anti-républicain la ku dangereux la ngir jàmm ak dalum réew mi maanaam Ousmane Sonko baaxutoon ci Sénégal Le Soleil waxtu woo di ñu yëgal ne Ousmane Sonko moomaa teewaloon njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye ca investiture président Paul Kagame bu Rwanda ñu des ak fi mu dox ba yegsi bopp réew mi yéenekaay bi ne discours ba itam réseaux sociaux yi diaspora beeg financement yi journal bi dellu siwaat ci fukki at yi Pastef dox ba yegg si ci boppu Sénégal seppi ca Ousmane Sonko tuddee ko accélérateur de changement jaar-jaari Pastef boobaleb yéenekaay it def ab jàngat jox ca kàddu boroomi xam-xam yu koy càmbar léese ko waxtu woowa dinu xamal ne Pastef moomaa ngay janoog tey ay njuumay boppam yéenekaay bi ne mbiram cotisation moo fa tàmbalee jur coow appel à wax waxi appel à candidature nañu jël militant yi Pastef yi tabb leen te assumé ko nag journaliste yi daa ni xeex ba ne ña koy waaj a Les Échos noonu la ñu yëgalee ne ëllëg journée sans presse la ñu ci nar a def ngir janoo nguur gi yii ne cabinet dañoo fas yi xalima yeeg caméra yi ngir ñaawlu compte bancaire yi dakkal yi di yenn payoor yi enquête naan ñu feneen fi am jafe-jafe mooy Air Sénégal yii ne cabinet musiba mbaa ba bi ne Air Sénégal mooma tey am na déficitu cent milliards téeméeri milliards yoo xam ni pertement la yéenikaay bi ne waral kër googa fi mu ci perfusion la dëkk maanaam daa mel ni ku nuy sampi butéel waxtu woowa Walf Quotidien naan ñu bët saalamu réew mi ngir lanu leen teg ñu war koo fay te nu ne àndunu ci CEDEAO mi ñu bari àndut ci ni muy doxee Sud Quotidien ca moom la xëy ne une organisation en question lu ñu war a càmbar lay ci yéenekaay booba dossier la ko yéene kaay ba jagleel waxtu woowa libération di fana fàcce dossier fiscal bu Woodside ñeel Champ Sangomar fa nuy manqué pétrole ba yéene bi ne redressement fiscal ba nu ko njëkk a defal mi ngi toll ci téeméeri milliards yu teg fukk ak juróom-ñeent ak juróom benn téeméeri million ak ñeent fukk ak benn journal ba ne ñàkk fay impôt na mu waree moo ko waral ci société yi waaye itam retenue à la source yenuy dagg ni ki revenu sur le jour naan a dem jotuñoo yegg fuñ duñ la leen takk der yi tegee loxo ña doon yóbbu di convoyeur yéene kaay ba ne takk der ya mujj ñu leen a jàpp ndax danoo daw ñun foofa la ñuy taxaw ñaanal leen kendal ak jàmm dig dajee ëllëg incha allah AGT News